mardi du neex bi boo présenté livre bi du neex bàyyi ba mercredi. suba la Samba Peuzé di ñëw. jouru Samba Peuzé. Samba Peuzé ñëpp a ko bëgg. kon ñëpp seetaan. livre docteur euh, docteur Seck bi euh, docteur Babacar sekk bi nit ñi dañ koy gën a xool. Mm-hmm. et puis bu Samba Peuzé ñëwee bu leen présenté livre bi mun ngeen dem Harmattan jënd ko foofu. Mm-hmm. ba pare ki ñu ciy waxtaanee cantaako ñu rek bu kenn ku ne jënd livre livre bi nekk best seller. <laughs> ku mën promo. da nga xamul ki ngeen nekkal xanaa xamul nit da ngeen di nekk ak moom nit da nekk ak moom ba mu dem ngeen doog a xam valeur am mais fi mu nekk nii mënagul leen xam sama valeur. waaw du jaan dem ñu topp te watit way daw te yooyu yëpp amul sens. léegi maa ngi souhaiter un bon anniversaire à natif de ce jour donc bokk na ci euh, ki nga xamante ni euh, moom lañ njëkk jot message ah c' était une petite princesse mais la part de Nafi Mu Ndaw yaayu Serigne Fallou euh, Jamila Silla ca France qui souhaite un bon anniversaire depuis hier d'ailleurs à euh, Rokhaya Kamara de la part de sa mère Fatou Ndiaye euh, depuis Parcelles Assainies ak euh, toute la famille de Jojo Fall ñu ngi koy ñaanal gudd fan démb la woon happy birthday princess joyeux anniversaire à Alioune Badara Gueye et à toute la famille Gueye de Kër Massar te souhaite un joyeux anniversaire leur très chère maman Khady longue vie prospérité santé et bonheur on t'aime très fort c'est de la part de Ekon Ekon bi ànd ak koy ñaanal joyeux anniversaire à Ndeye Astou longue vie et très bonne santé c'est de la part de son père sa mère Mam Mati ak euh, toute la famille à Géoul joyeux anniversaire à Ndeye Sokna euh, Ndeye Sokna euh, Camara jabaru Aziz Soumaré la mais kan la ci première wala deuxième première kon kii mooy yaay Mam Fatou yaay Mame Fatou Soumaré on lui souhaite beaucoup de bonheur à Aziz Soumaré soxnaam euh, tey la anniversaire donc joyeux anniversaire joyeux anniversaire à Ablaye Socé jeune tailleur baax bëgg ma de la part de Khady Ndiaye ak euh, toute la famille du sama Khady be bokkul ak sama Khady beneen la kon c'est de la part de beneen Joyeux anniversaire à Seydi Baye depuis Guédiawaye happy birthday de la part de Rakim anniversaire à Maman loo dund doyul joyeux anniversaire à ma badiane d'amour je tout le bonheur du monde de la part de Maman Koutia joyeux anniversaire à happy birthday joyeux anniversaire à bébé Mohamed Ndiaye depuis Yeba de la part de Tata Awa joyeux anniversaire à Mohamed Diop Rufisque Fass fils de Asmalik correspondant TFM banlieue et Khadijatou Diop longue vie à toi de la part de ta famille joyeux anniversaire à Fatmata Sy chéri Moussa Fall depuis Golf joyeux anniversaire à ma princesse d'amour bébé Nafissa depuis Kolda Gundel euh, Dëndal Gundel Gundel voilà joyeux anniversaire à ma goro d'amour Ajaratu euh, Ami Malé depuis les HLM Las Palmas à Guédiawaye waaw maama Ngalla maa faale joyeux anniversaire à mm, c'était où encore euh, fan laa tolloon Fatima ah? mm-hmm. Joyeux anniversaire à Marie-André, c'est de la part de Eva et toute la famille. Marie-André, on te souhaite beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire à notre tonton Iba Kane, de la part de toute la famille. Longue vie, Nidjaï Kane. joyeux anniversaire à Nicolas Seck fille de Kiné depuis Dakar et toute la famille Seck joyeux anniversaire à maman Bassine Fall de la part de toute sa famille en Italie et au Sénégal joyeux anniversaire à Bijou Dieye depuis Maroc c'est de la part de Ndeye Anta Ndiaye et de Thioro Mbar Ndiaye Amadou Ndiaye Missane Ndiaye Missane Ndiaye Mbar Ndiaye Mbar ak Diogomaay doomi Serigne ancien ministre joyeux anniversaire à Mam Fatou sama lakkal bu ñaawul bi euh, ci triangle de la mode c'est de la part certainement de euh, de la anniversaire à ma copine Kumba madame Yata Saï depuis France c'est de la part de madame Ndiaye Binette longue à ma chérie joyeux anniversaire Dodougou Prox Ndoll joyeux anniversaire à ma Badjan Badjo Bey dundal Badjan et merci pour sa taxawaay c'est de la part de Mary Bey ta nièce joyeux anniversaire à Vieux Sissoko on fait <coughs> beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à ma sœur Ngone Diakhumpa depuis Kaolack de la part de Soda Diakhumpa ci Diakhumpa boobu sax la ñuy tëjee émission bi tey on va se retrouver euh, on recevra euh, ki nga xam ne ni mooy euh, Mamadou Diagne Fada euh, Fifi ñaan mu Cheikh Mbacke Ndiaye Samba yaay de sukka bi ci dex gi ci ndar ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire tey la bésam c'est de la part de toute la famille yaayu baay Daaro sama doom ak ki nga xam ne ni moo di Kumba Sey nee na mu ngi souhaiter un bon anniversaire à Fifi Niane di nuyu itam Nabou Camara Eh, yaayu maam Sala Adja Koumba Diop ca Paris fàttewuñu ñoom Penda ak Awa on leur souhaite beaucoup de bonheur a toute la famille à Amdien eh, ca dëkk bu ñu naan eh, France fàttewuñu seen yaay ak toute la famille Dieng ca Paris merci Exidex et à demain. à jeudi à jeudi inchallah Samba si euh, xam naa ne dinañ ko amaat beneen jour. sinon euh, voilà on lui souhaite toujours bienvenue. Mm. Euh, très rapidement Pape Apoulaye am na benn am na yu ma lay yónnee. Mm. c'est très important kii happy birthday à Mama Diama. Diama donc voilà maman Diama donc depuis Tivaouane de la part de ta maman de de Sira Niang donc toute la famille euh, ñu ngi lay ñaanal gudd dund bu baax et on t'embrasse très fort kii euh, moom tamit happy birthday à Bati donc euh, Bati Fall nag moom mooy euh, caatu kër gi donc euh, xam nga ko fi jaar umi donc mère bi paa bi toute la famille Fall depuis Wakam donc on te souhaite vraiment un joyeux anniversaire Nati sinon je vous donne rendez-vous allah jeudi ñu ànd leen encore yeneen sujet Pape Cheikh. merci beaucoup jaajëf waay Exidex Mamadou Ndiaye dikkate na plateau bi en pleine ah, émission xam nga yéen a tax <laughs> bëgguma wax ak moom. parce que gis ci émission nga wuyu téléphone jóg yoon lekk waale wuyu wuyu lu ba demaale <laughs> kii bu ñëwee suba sax du wax. app naa ko un mois. déedéet bu ko app waay appil xam nga yow lekku na. <laughs> yow lekku est-ce que urgence. non doo wuyu defe naa doo wuyu. ñu urgence ñu toog di ko gérer. xale la bàyyi jàmm ñu tàngoor ba suba yow corom. di nuyu waa Tivaouane gi yëpp fàtte naa ko. <laughs> yow tàngoor.